tournée conseil municipal aussi mu demandé audience président. oui justement yamul ci mhm. amul lu wax tey amul lu bees loo xam ni ñu xamuñu ko xam nañ baax. non Sénégal ko woon ah a ngi waxtaan ak Macky Sall. dafa nekk surprise si ñun tey ak Macky Sall non waxtaanuñu ak Macky Sall. Barth waxtaan ak Macky Sall. waaw xam nga Barth c' est le maire de Dakar. le maire de am na droit wax ak Macky Sall pour lu a réew mi mais dakaar boo amee problème tey taal yëpp Dakar dañu koy defee. Mhm. li ëpp si dakaar mooy yàqu banque yi tëj commerce Dakar yàqu bart tey rôlam mooy protéger waa Dakar sàmm ak àqu ak yelleef waa Dakar sàmm seen i moomeel loolu mooy taxaw Barth li mu jaas donc si la euh, bu Dakar tax a naa comprendre bu fekkoon ne comme ni nga ko waxee Dakar rek la wax mais nee na il a parlé avec euh, le président Macky Sall ci ay sujets yu bëree bëri limité euh, pas limité dénombré na ko. Mm-hmm. wax na ci. duggaat ci jeu politique bi ñu si génnoon. Mhm. injustement loolu la wax Macky Sall droit dans les yeux ne ko da nga xañ Khalifa Sall 2019 te xam nga ne waroo ko woon a def. donc mhm. delloosi ko. loolu benn point ak ñi nga bëgg xañ. waaw ah bu leen xañ. ñi nga bëgg a xañ ku ci mel ne Ousmane Sonko. waaw ba xam ne say tànkam la nekk mu ne bu leen ko xañ amu leen droit xañ kenn kon Barth il était cohérent. et il n'était pas seul pour Khalifa Sall kon. xeexulul pour xalifa xeexulul pour Sonko dafa xeexul pour képp koo xam ne dañoo noot sa àq loolu mooy. Khalifa Sall euh, il ne dit rien encore il ne dit mais. il ne dit mot quoi. Euh, ci démarche su Barth bi. Mm wala ci appel au dialogue bi. Mm -hmm. nga base bi lay xaar. Mm d' accord naa mais il a aussi di euh, dit nga bu mu écarter ñi war a bokk. Mhm. donc loolu bu ñu ko waxee au Sénégal en ce moment on pense à Ousmane Sonko. Wow. te paradoxe bi mooy que ne. Mhm. ñooñu ñoo koy attaqué jamono ji waaw xam nga ñun ni ñu mel la ñuy doxee lañuy waxe ku ne ni nga mel ngay yor doxee ni nga mel ñun xalif lañ àndal ñun ñu xalifa mel posture la ñuy jéem a ànd ak moom si noonu boo amee kilifa ni mu mel rek ngay bindoo donc ñun suñu cër du xool ku wax xalifa lii ak lee mais dañoo war a warmalante suñu biir. Mhm. sàmmante dignité suñu biir. parce que xalifa nag lu ko waaye mënti waxal xam na il est li mu dund épreuve yëpp mu jaar da ko dund ak dignité xasul. kenn saagawul kenn waxul kenn lu ñaaw. mais que lii du ko yàq ci liñ jëm nii. no mën na ko yàq comme mën na ko bañ yàq su fekkee ne intelligent nañu. Mhm. parce que li ñu boole waruñoo mën tàqale. nañu joxante worma joxante dignité. 2009 mais xalifa moo nekk maire Dakar. c'est vrai coalition bi mu demee gagné opposition lañ nekkoon. Mhm. jàkkaarloog président Abdoulaye Wade. waaw gagné ko. gagné Pape Diop jëlee ko fi. 2014. ànduñoo benn Bokk Yaakaar taxaw sa Dakar lañ duggee. c'est vrai et pourtant ñoo faloon Macky Sall 2012 taxaw en en Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñu pare 2014 Macky Sall mu ne dafay teg Mimi Touré Khalifa jël ay décision jël responsabilité am ne ànduma ak yéen man go si góor laay ànd ak nit loolu mooy courage ne damay génn benn Bokk Yaakaar camp sama liste. Khalifa il est mais est-ce que amul lu des ci moom li tax ma bëgg wax loolu mooy. wax nga ko léegi en 2014 il était maire de Dakar. waay Macky Sall ne ko malgré ça damay samp candidat te ñu bokk benn coalition. loolu ànduma ak yow. loolu benn acte la bu Macky Sall waaw jëmale ko ci moom. waaw ñu tegaat ci tuuti ñu révoqué ko maanaam dañoo dem Macky moom mu gagné. waaw après ñu dindi ko ci mandat boobu nangu ko ci moom. waaw nangu poste député bi. waaw maanaam tëj ko prison. waaw Khalifa il te avant loolu mu dem gagné élection n'est-ce pas. ñu ñëw audité ko ARMP ñëw auditer ko. Mhm. jox ko meilleure note fii dans ce pays. donc bon maire. ARMP épinglé wul Khalifa Sall épinglé wu ko. IGE moo ko épinglé. IGE épinglé ko. IGE dafa def ay ay griefs si yenn. doxalin yi geste voilà si caisse d'avance bi kese la ko def. Macky li tax may rappelé loolu xam ma ne la monsieur le maire loolu yëpp dafa bëri ah man bu doon man la. duma ci def table rase. du ma ko bàyyi. mais xam nga tax ma bëgg mais Khalifa Sall jamono ji les gens se demandent kii est-ce que réellement. il a subi tout ça mais xam leeral foofu. Mhm. parce que wax ji dafa bëri te ñaaw. oui te ñàkk teggin. non les gens ne comprennent pas cautionné mu wax ju ñaaw ji nag mais ils moo tax ma bëgg leeral ne. Mhm. benn code de contrôle mës a épinglé Khalifa du loolu la ñuy wax ah ñun du loolu la ñu tàmm di wax. mais il faut aller vérifier les rapports des corps de contrôle. UG e épinglé wu ko. dafa ne nañu revoiraat fonctionnement wu caisse d'avance bi mais ku nekk ministre Abdou ba léegi kenn mus la épinglé ba maire Dakar xamal nga ku jub nga ku cohérent nga ku xam lu ñuy gérer yëfu nit ñi. non mais non mais attendez monsieur le maire euh, li ngay wax nii euh, du teew ma ci. setu Khalifa Sall. waaw wax mooy on sait tous qu'au Sénégal tant que yaa ngi nguur gi daanaka tu n'es jamais inquiété. boo waxee déedéet le problème yi di commencé. waaw foofu laay ñëw nag maa ngi ñëw si sa kii bi maintenant bi loolu amee Macky Sall jafandu si caisse d'avance bi ba caisse d'avance bi Khalifa Sall du moom moo ko njëkk utiliser. oui mais c'est pas waaw d'accord na je d'accord mais pour ñun lépp luy dimbale askan bi rek war nañ ko doxalee def ko mais teewul Macky Sall bi mu ñëwee jàpp si loolu yóbbu ko. procès bu gaaw la ko defal. Mhm. fast track ñu ba pare ba pare dafa jég ay étape mais procureur waroon waroon woo Khalifa Sall Cour de comptes moo waroon jël affaire yi en paix mais procureur lañ ko jox procureur convoqué di convoqué ko mu dem wuyu ji ñu baaxal affaire yi jàpp ko tëj ko cinq ans de prison. ci woon dara. ba pare li gën a garaaw mooy ñu ne da nga détourné sept à huit milliards ba pare ñu ñu amende la cinq millions. daa mhm. montre que ne li ñu wax amul. ñu tëj ko mu kon nekk ak dignité am kenn dégg ko fenn mu yuuxu et li gën a garaaw mooy ñu koy attaqué yëpp tey bañ tëjee Khalifa Sall kaso dañ koo seeti kaso pour ñaan ko ndimbal mu jox leen loxoom liggéey ak ñoom te mi ngi si biir prison bi. ce qu'il n'avait pas fait parce que moom idée àndoon ko taxaw senegal en 2017. idi bàyyi ko mu ne tëdd pour nekk. idi da koo tegoon xel doon xalaat lii. waaw bu dee teg xel la. réussir na mission am. Mhm. parce que daf ñëw ji ngor ñu delloo ko ngor. Mhm. est-ce doon naïveté non loolu moo nekkoon logique politique bi day dafa waxoon da ngay toog logique bi et puis dara parce que Khalifa joxoon ndigal ñu jàppale Idrissa Seck jàppale nañ ko tey liñ ci liñ ci ci liñ ci ci.